nii mais mais mais euh, aujourd'hui man damay wax nit ñi toujours même même bu fekkee sax tu n'es pas Pastef ce qui se passe aujourd'hui tu ne peux pas ne pas aller avec le Pastef parce que li ñuy nekk di subir injustice bi ñu leen di teg ak avec tout en tout cas tout ce que leur leader est en train de subir boo nekkee en tout cas nit ku am xol et am yéene pour le Sénégal je crois que la la seule solution c'est d'aller travailler avec. et vous avez espoir que euh, yëf yi dina soppeeku parce que vous avez rejoint PASTEF à un mois compliqué de leur existence politique avec leur leader qui est sur des fronts yu metti jamono jii nii euh, gis nañu ce qui se passe ñàkkul xam nga ko man li mu wax mooy. est-ce que c'est pas un peu risqué euh, pari bi nga bi bi nga jël. non man. Euh, parce que ça ça dépasse votre personne en fait là il s'agit des des des des habitants de Goudomp ak seen bien rek seen euh, yi nga xam ne. mën na leen amal njariñ ëllëg. man damay wax toujours que dans la vie il y toujours cette dimension risque qui existe partout. Mhm. moom ba may ñëw ni sax amoon na un risque la preuve en est que dama dama xaw a tardé lépp looy def dans la vie il y un risque mais ça vaut. la peine de vivre ce risque-là parce que tey jii moi je crois que ce qui se passe au Sénégal ça dépasse carrément la personne Sonko man dama koy wax nit ñi toujours euh, les gens se focalisent trop et je crois que Sonko lui-même il le dit que euh, sa personne est beaucoup moins important par rapport à au, au Sénégal et au Sénégal. mais loolu la ñuy wax mais euh, est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il maanaam est-ce qu'il le montre réellement. mais c'est ça. mais vous croyez que un inspecteur des impôts et domaines il aurait pu gagner sa vie autrement. est-ce que dina doon nekk ci coono yi mu nekk ni tey est-ce que sa vie est, est beaucoup plus apaisée que li muy dund tey ji et il en est bien conscient et ainsi de suite il y en a beaucoup comme ça mais pour vous dire que li ñuy def ni ñëpp war nañu xam ni y a des gens qui aujourd'hui sont encore imbus des valeurs hautes de la nation ils sont prêts à la défendre ju euh, jusqu'au ah, prix même de leur ah. sang